xibaaru jaww ji ak Oumy Samb mi maa ngi lay nuyu. ma lay fay bu baax ça va bien alhamdulilah di nuyu équipe bi et puis bonjour à nos très chers téléspectateurs euh, un très très bon début de semaine pour commencer donc la météo du jour. ñëpp li ñuy euh, xaar mooy taw waaw taw bi oui mais bon. ça va s'arranger ñu ngi ñëw ci stabilité bi mais balaa loolu euh, ce week-end enfin depuis vendredi taw yu bëri doole ah c'était. Euh... doyoon na waar daal on a enregistré jusqu'à 136 millimètres d'eau maanaam 1 mètre 36 euh, d'eau euh, Yoff moo jël euh, raw gàddu gi foofu noonu dégâts yi bëri nañ y a eu pas y a eu trop de dégâts euh, trois nañ ko une femme qui a perdu si corniche bi doyoon na waar daal mais bon il faut savoir des pluies euh, qui sont taw bi c'est normal quantité taw bi parce que si nawet lañ nekk nekk c'est tout à fait normal bon yeneen problème yi euh, c'est pas lié euh, au changement climatique loolu la lay insister mais retenez que c'est complètement normal dañuy jéem a jël suñu matuwaay rek xool euh, xool nu ñuy mën a def quand la pluie s'annonce ñuy jéem a aar protéger le matériel surtout parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts matériels oto yi gis naa gis naa enfin doy na waar daal. yooyu mhm. c'est c'est compliqué donc là on repart euh, sur la stabilité taw bi doy na tuuti excepté au sud du pays foofu noonu taw bi dafay des euh, ba léegi diggante Kédougou Kolda Sédhiou ainsi que Ziguinchor taw bi euh, dafay descendi mais sur le reste de la carte on va retrouver un temps qui est stable taw bi dem tuuti côté température tey moom ñu ngi tàmbale 23 degrés ce sera complètement au sud ci Ziguinchor 24 degrés nañ ko am ci feu ci Fatick ci ainsi que Kaffrine vingt cinq degrés pardon à Tambacounda vingt cinq également à Saint-Louis vingt sept degrés ci Dakar vingt six degrés on va pour Kaolack vingt quatre degrés ci Kédougou et puis euh, comme je viens de le dire qui le soleil euh, qui sera de de retour soleil plein cet après la carte. c'est-à-dire au nord ñëw ba ci centre bi moom jant bi moom dina fenk bu baax tey et la pluie qui reste sur le sud taw yi taw bi euh, si sud bi la concentré wu ba tey foofu noonu du changer niir yi di doxantu sur euh, la plus la moitié de la carte on va dire et puis des températures qui sont en légère baisse on va dire degrés la température minimale ci Dakar Alizé maritime bi mooy dugg peexu géej gi 33 degrés ci Saint-Louis 36 ci Louga 33 degrés ci Thiès 36 ci Diourbel 33 degrés bi également dinañ ko am ci Fatick 34 à Kaolack ainsi que Kaffrine 33 ci Ziguinchor ak Sédhiou 34 degrés ci Kolda 37 degrés la température maximale du côté de Matam 35 à et 32 dinañ ko am ci Kédougou dënnu bi moom mi ngi teew ci dina teew euh, ñu ngi koy séentu pardon ci Kolda Sédhiou ainsi que Ziguinchor on retient toujours que la météo euh, ay statistiques la ñuy def donc ça peut changer quand même à tout moment moo tax ma naan euh, ñu du côté de Kolda à Sédio ainsi que Ziguinchor. la prochaine pour 5h10, euh, 17h24, prochaine marée basse 11h24 ainsi que 23h51 heure bu pour nappi ji ci suba gi c'est ça sera entre 8h38 ci kanam tuuti et puis 10 wax donc euh, dañ ciy am yaakaar toujours et puis di fagaroo de sauvetage bi GPS bi et puis euh, la petite boussole toujours bu jël euh, yoonu géej gi loolu mooy kaaraange gi te du changer rappelle un petit peu tous les jours pour 6h55 la woon le coucher à 19h37 toujours aux alentours de timis loolu tamit du changé c'est comme le gilet de sauvetage on se repère euh, sur le coucher du euh, pour heure timis bi Euh, naa dellu si si kanam. Mm-hmm. en fin d' émission ñu gën a yeesal euh, météo bi. Mm-hmm. incha allah ma la nga desandi ak Marcel à tout à l'heure à tout à l'heure Oumy Samb merci beaucoup ba ci kanam léegi léegi dañuy dalal euh, Marcel ba Maroun ci un jour une actu.